wax na ci jàngoro ji ni mi lawee ci réew mi wax na ci njariñ li nga xam ne couvre-feu bi am na ko waaye nag piicong mbaaloo gi nga xam ne am na ci vaccin bi daat nay wax ne fii ci déndu Afrique amul benn miracle africain boo xam ne am na ci wàllum coronavirus lenn kay moo am déndu Afrique dafa bëri nag ay ndaw waaye nag loole teewul bëri na ñoo xam ne ñoo ngi ciy loru ndax am na ñoo xam ne jëm nañu mag am na tamit ñeneen ñoo xam ne yeneen i jàngoro la ñu am ñu laaj ko ci lu jëm ci wàllum vaccin bi nee na piicong gi bëri na ci te loolee ñàkk waaye solution bi maanaam mooy vaccin bi vaccin bi mooy solution bi yéen a kaay gii di Walf Fadjri mu ñu xamal la ñu en tout cas li am ba des daal coronavirus bi ni muy ci réewum Sénégal ak ñi nga xam ne ñoo ciy faatu bëri nañu lool ndax lu toll si juróom fukk juróom benn ñàkk nañu ci seen bakkan ci benn ay bés yéen a kaay gii di la Soleil nee na woppi coronavirus neexul ba neexul waaye nag ma ngi law ci réewum Sénégal waaye nag gox bii di Touba woppi coronavirus ma nga fay law gox bii di Kaolack woppi coronavirus ji ma nga fay law gox bii di Saint-Louis timit woppi coronavirus ja ma nga loole nag daat nay tax mu jaaxal lool lool ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ak yan matukaay la ñu ci waree a jël yéenekaay gi daal ñuy xëy di ñu xibaar naan ñu lii ca Jean Mermoz bu Ndakaaru am na ñeenti élèves yoo xam ne amee nañu fa woppi coronavirus yéenekaay gi du source a nee na neexul ba neexul wopp ji ma ngi law ci réewum Sénégal waaye na couvre-feu bi ak état d'urgence bi jeex na ni ki démb ci dimanche ji jamono ji askanu Sénégal gi yëpp maanaam Macky Sall la ñuy may nopp président Macky Sall la gars yi di déglu est-ce que nag Macky Sall dafa yokk li nga xam ne maanaam mooy couvre bi ak état d'urgence bi samp laa wala nag couvre bi Macky Sall daf ci ciy boole gox bii nga xamante ni maanaam mooy Touba xam ne woppi coronavirus ja ma nga fay jaaba jonge ak gox bii di Kaolack xam ne woppi coronavirus ja ma nga fay jaaba jonge ak gox bii di Saint-Louis xam ne coronavirus ba ma nga fay jaaba jonge yéen a kaay gi du l'Observateur nee na en tout cas li am ba des dal Macky Sall dafay yokk li nga xam ne maanaam mooy mesures yi gën koo taral wala ana lan la Macky Sall di def wala nag dafay jël couvre-feu bi maanaam wàcce ko ba dix-huit heures jàpp cinq heures du ci li nga xam ne maanaam mooy week-end yi yéen a Ambadé Sall kuréel gi nga xam ne ñoom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum xeex mbas mi ci Sénégal ak waa assemblée nationale tey jii dana ñu amal ab réunion yéenekaay gi ñu xëy fekk fa Assane Samb mu xëy jël xalimaam wax ci koppar yi nga xam ne waa Union européenne jox nañu ko Sénégal ngir mu jëm ci wàllum xeex émigration clandestine xaalis boobe nag sénégalais bu nekk am na sañ-sañ laaj xaalis ba ana fan lu dugg sénégalais bu nekk tamit am na sañ-sañ wax ne xaalis boobe nañu ko auditer nañu ko càmbar état bu Sénégal moo ci leeral moo ci war a kàddu yu Assane Samb la ma ngi ci yéen a kaay gii di réew mi quotidien li nga xamante ni nag moo am ba des daal Boubacar Seye mi nga xam ne teg nañu ko loxo ci ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko loolee rek maanaam jëru ko woon te nag jamono joojee am na fi ñoo xam ne ñoo ngi wuruj luuba la def ay njombeek tojaange ci xaalisu askan wi ay rapport joxar bi leen baaraamu tuuma te jamono ji ñoo ngi gundaandaata maanaam dara fekku leen ca maître Assane Dioma na daal client bii di Boubacar Seye ko bëgg a humilier kese rek dong loolee moo a nee na li tax Boubacar bokk na ci cent dix nga xam ne moom la ñu wax ne waa Union européenne ñoo ko dimbale Sénégal waaye nag li nga xam ne daal am na ba des daal te Sénégal yi war see wax maanaam mooy xaalis bi nga xam ne dañu koy dimbalee réewum Sénégal xaalis boobee dañu ko war di càmbar di ko audité baskan wi di xam xaalis boobee ana fan la dugg yéen a kaay gii di libération xëy ci wàllum association de malfaiteurs lëngoo di def ay ñaawteef ak lu jëm ci wàllum guerre corruption bu rëy moo am ci centre maanaam fi nga xam ne fii la ñuy defee ay visite technique ci Dakar ak luubal gu doy waar moo ca am am na sax ñoo xam ne fa la ñuy liggéeyee di ay agent jamono ji teg nañu leen loxo ndax dañoo jàpp ne bokk nañ si ñi def ñaaw téef yooye yéen a kaay gi du l'Observateur génn ñu Ndakaaru yóbbu ñu ci diwaanu Kolda nee na baaba malaa bi mii nga xam ne moom la ñu joxar bi baraamu tuuma ne dafa dajale ay nit am si ñenn ñoo xam ne yegg na si seen kaw ba di leen di yekkataan jamono ji ma ngi ci guddi gu bët setigu la ndax na juróom-ñeenti xale yu jigéen yoo xam ne yóbbu nañu leen sa gynécologue ba ngir mu càmbar leen xool leen ba xam tëddee nañ leen waaw wala waaye nag li nga xam ne moo jaaxal gaa yépp baaba malaa bi mii xale bu jigéen bii nga xam ne moom la ñuy wax ne yegg na si kawam ak moom la takk yaayu xale bu jigéen bi la njëkkoonu choisir ba mu yàgg mu bàyyi fa yaayu xale bu jigéen bi jël doom ji am 14 ans yéen kaay gii di estat xëy na ci Premier League Liverpool bu Sadio Mané ñoom jamono ji ñoo ngi cay jafe-jafe ndax football nañu ñeenti match yoo xam ne amuñu victoire Manchester United ba léegi moo nekk leader yéen kaay gi di làmb xëy na ci wàllum làmb ji nee na combat Modou Lo Ama Baldé bu ñu ko defee huis clos kan lay gën a arrangé ñu jeexale ko ak anniversaire président Mbagnick Diop mi jiite MEDES tey jii fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier journal bi nee na dina am benn cocktail boo xam ne danañu ko ci amal waaye nag nit ñu yamamaay lay doona woppi coronavirus ji moo fa jaar waaye nag sa ndaje moomee danañu fa nag wax nag taxawaay bu am solo bi nga xam ne président Mbagnick jóob def na ko ci développement bu senegal ak nag xeex bi nga xam ne yàgg na ko def ci lu jëm ci wàllum chômage di lijjanti fexe ba ndaw am liggéey maanaam nga bëgg ko ak nga ñàkk ko